jërë ngeen jëf daleen ak jàmm ci xew-xew réew mi tey altini ñu tàmbalee ko ak mbir mi nga xamante ni moo xew ca Casamance ak yàmbaay gu bëri goo xamante ni teg nañ ko loxo te l'armée bi ñoo ko def ginnaaw ba ñu songee ay base yu bëri yu MFDC te ki nga xamante ni moom mooy Paul Alukasine seen moom ko fa nga xamante ni mooy Njobolong ak Médiadia lool nag ñu ngi ko amal ci juróom-ñeenti fan ci weer avril bi ñu nekk ginnaaw bi nga xamante ne nag dugg nañu ci yenn base yi nga xamante ne dañ fay bay yàmbaa lu bëree bëri ba sax ji ñu ngi wax ne lu bëri ci li nga xamante ni moom mooy base yu César Atoute tamit doon nañ fa amal li nga xamante ni moom mooy bayu yamba boobu waaye opération yi nga xamante ni ñii di waa armée bi def nañ ko tax na ñooy teg loxo lu bëree bëri ci yamba yooyu waaye tamit ay bagage yu bëree bari yoo xamante ni daanaka ay arme ñi ngi ci ak yeneen yeneen yoo xamante ni jamono ji nga xamante ni armée bi ñi ngi amal ay opération ci ko wëyal te fi nga xamante ni mooy Casamance ñu wax ci leneen muy ñi nga xamante ni ñooy sàcc bant ci àll bu Sénégal daal nañu am jafe-jafe ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Eaux et ba sax am na kenn koo xamante ni daal nañ ko faat ci mbir yooyu ginnaaw opération yoo xamante nañ ko amal ngir sécuriser li nga xamante ni ñooy àll bu Sénégal yi loolu nag ma nga amee fa nga xamante ni moom mooy sa Sinthiane Seck nekk ci commune bu Ndorna ginnaaw ba opération boo xamante ni lu toll ci fukki nit ak juróom ñoo ko amal ñu si béy na daal nañu rëcc waaye nag kenn koo xamante ni nag daal nañ ko faat ak fetal ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa eaux et ñoo amal lu ni mel ci loolu nag jot nañoo teg loxo lu toll ci fukk ak juróom-ñeent charrette yoo xamante ni daanaka lépp ay bant la defoon ba fees ak fukk ak benn ci ay fas yoo xamante ni ay mbaam yooyu yëpp tamit daan nañ ko teg loxo yëpp daan nañ ko yóbbu ca brigade bi nga xamante ni moo nekk ca na nekk ca wetu frontière bu Gambie beneen mbir bi xew ci réew mi muy ñi nga xamante ne waa post jamono ji nekk ci ay jafe-jafe ginnaaw bi nga xamante ni nag gis ay clients yu bëri waaye tamit ay jafe-jafe bëri yoo xamante ni boobulee entreprise mi ngi koy dund ay atangi ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy UNCS nekk Union nationale des consommateurs du Sénégal ñoom nag jamono ji am nañ sax ay jafe-jafe ngir fay ñi nga xamante ne ñoo fay nekk waaye tamit clients yi nga xamante ñoo fay nekk ak organisation yi nga xam ne ñoo fay liggéey nañ amal nag tey jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni tasut xibaar yi ngir wax ci jafe-jafe yooyu nga xamante ni poste mi ngi koy dund ay ngi aju màkk ren gi dina am waaye tamit li nga xamante ni la waa Arabie Saoudite jël ngir dogal ko lu toll ci benn million ci ay nit ñu ñoo daal di aji màkk ren ji ginnaaw bi nga xamante ne nag ñu ngi génn ci li nga xamante ni moom mooy coronavirus bi Sénégal nag ñeenti junni ci ay nit lañ leen daal di may ñu ngi ma dem daal di aji ji màkk te nag ñëpp ñu ngi war a am lu toll ci juróom-benn fukki at lu ko yées te sax ba ngaa dem tamit di nga daal di joxe benn genre test négatif boo xamante ni am na lu toll ci ñetti fan. li ñu jeexalee xibaar yi mooy ki nga xamante ni mooy jarbaatu Abdoulaye Wade nekk maire bu Biscuiterie di Mouhamed Djibril Wade daal dina fekk ki nga xamante ni moom mooy kii di Macky Sall fa nga xamante mooy Benno Bokk Yaakaar loolu ne mi ngi ko xamle ginnaaw bi nga xamante ne mi ngi doon waxtaan ci euh, wàllu terrain bi nga xamante ni la ñu war a jox équipe bi nga xamante ni moom moo ko daal di jiite muy waa ñaari tali INGB ci loolu nag daal dina wax li nga xamante ni moo waral mu daal di fekk ji ñii di Macky Sall ak ay ndax dafa jàpp ne li nga xamante ni Macky Sall def na ko tuddee stade bii di Abdoulaye Wade ba kii di Karim Wade yëkkati ab lettre di remercier ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall moom nag mi nga xamante ni mag la ci Karim Wade gis ne ne day yell mu daal di fekk ji ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall ginnaaw ba jëf ci nga xamante ni def na ko ngir sargal ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Wade waaye tamit li nga xamante ni jël na comme dogal dina gën a rataxal li nga xamante ni moom mooy jubóole ñi nga xamante ni ñëpp ñoom ñoo jaar ci keppaaru Abdoulaye Wade lii ma gënoon a fës ci xew-xewu biir mi tey ji altine ñu jox di dajee suba ci yenn xibaar fii ci réew mi